bëggoon defee ñu ngi di jéggalu bu baax a baax waaye di am mbégte parce que malgré retard bi jaral na leen ko ba léegi yéen a ngi toog fii di ñu xaar ndax xam naa ni su am na heure boo xam ne buñ ko ñëwoon peut-être fii fépp dina fees di félicité ak di gërëm coordination départementale PASTEF bi. dëgg la ñëwuñu fi tey ci turu Pastef donc parce que dañoo nekk ci coalition donc su may wax en tant que damay wax ci turu coalition Sonko président waaye it dinaa gërëm waa Pastef yi ci seen taxawaay ndax dañ ñoo woon ngor bu mat sëkk parce que ñii ñëpp maa ngi leen di doon gis ñoom ñëpp à part docteur Diallo defe naa presque ñi ci des ñëpp tey la ñuy a gisee.

léegi rek xaw naa jàppal jàppanteeg seen coordonnateur ndax daanaka daf ñoo menacé dañu bu ngeen ñëwul gën gi neew tey ñaaxum am waaye lépp ci bëgg liggéey bi ak xel rek kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm nag suñu jigéen parce que tey laa koy doon gis waaye yàgg naa dégg taxawaayam ci fii gën gi neew muy taxawaay bu désintéressé mu lal ko ci pas-pas ak pasteur di wax ak jigéen ñi di leen convaincre kon ñu ngi lay gërëm bu baax su loolu weesoo nag ah man de li ma duggee ji ak léegi dama xaw a am lu ma bett ak lu ma jaaxal parce que Guinguinéo tur bi rëy na lool lool lool tur Guinguinéo rëy na trop muy département di chef lieu de département xam naa ni su dee chef lieu de département bi moo mel nii man xaw ma yeneen communes yi naka lañu war a mel doy na waar te li ci gën a yéeme mooy candidat sortant président sortant di candidat di président Macky Sall xam naa ni lu lu sorewul dara rek dina ñëw fii لخمنا ل 2012 نيوان في تخاو اك اي ديجيم جروم نياري ات يين ني دك جين جي ريو يي لا نيو مولا واخ تي جروم نياري ات اسك امنا درا سوبي خمدا كولا مونول جوخ نوخ مون لا جوخ كوران سولاري نار يوبو تي ايمرجانس سا خيل ورنا تاي gis nga lëndëm gi ñu nekkee bu la nee Sénégal la ñu nekk vingt-et-unième chef de département nit mënoon na taxaw fu ne def fi attentat kenn du ko gis dëkk bi yëpp mi ne kurus loolu musiba la man nag am na yu ma fi gis lu may ñëw nee nañ ma yoonu hôpital baa ngi nii te wax nañ ma jàmbatu hôpital bi waaye jàmbat jooju depuis des mois maa ngi def tour du Sénégal mun naa leen seedeel ni foo dem ci Sénégal même problème baa nga fa muy paj mi njàng mi ndox mi courant bi ñu ñëw ba fii ñu wax ñu problème mu njàng bi ndax fii ba léegi am nay abri provisoire mooy ba léegi am nay xale yoo xam ne ci ay sàkket lañ leen di dugal ñuy jàng ñoom ñi koy teg askan wi rek amu ci kenn koo xam ne doomam li ngi jàngee Sénégal bu ñu ñëwee ci yéen naan lañuy campagne si da leen fàttali loolu amu ci kenn koo xam ne doomam mi ngi fii Sénégal di jàng ñi nga Canada ñi nga États-Unis France léegi sax xeet nañu France dematuñu fa ci jamono jooju ñun ñee di di di doole yi ñun la suñu doom yi nekk école publique man de maa ngi koy wax

ma doxat touti ñu neuma gar baangi ni gar bi xam nga yeen xam ngeen problème mu Transrail yéen a koy dégg Transrail dañu ñew privatiser ko jox ko ku ñuy wax Abbas Jaber boole sona kos ñu jël ko jox ko ko ci anam yu doy war Abbas Jaber Nous signons un cahier de charge le contrat Nous dina investir 9 milliards pour réhabiliter le chemin de fer Dakar Bamako dina investir 9 milliards pour les outils de production du sonacos Nous jox ko ko mën symbolique. parce que nous ko ko joxé bo pour réhabiliter sonacos immobilisation sonacos matoon na cinq fois moom lañ ko joxee Sonacos raay bi même chose Transrail li mu diggee woon nguur gi yëpp defu ci dara investirul fukki dërëm ci raay bi ba ñu gis ni kii demul di ñëw jëlaat raay bi ci moom daal di jël 3 milliards yi leen yi nga xam ne moom la joxoon bi ñu koy jox raay bi Sénégal remboursé ko 3 milliards yi mu dem yoonam xam nga loolu fontu la au lieu ñu jël nag li ñu évalué woon ni suñ ko defaree defar raay bi Dakar ba Bamako 3 milliards rek la te loo raay boobu li muy li muy desservir ci ay dëkk imaginez Dakar ba frontière Kédougou ñaata gaara ci nekk kenn xamul nu mu toll dina la 3 milliards rek nga def ko ci dundalaat dëkk yooyu dundalaat gaar yi lu lu téeméeri oto mën. benn autorail dong mën na ko ci yóbbu ay marchandises te fu mu dem taxaw ñu wa ñiy wàcce ñiy yéegal Macky Sall lànk ne du ko def jël mille deux cent milliards buñ ko ne woon trois milliards rek nga def autoroute Dakar Bamako nga xam ne war na mat nu mu tuuti tuuti tuuti mille kilomètres mu bañ ne du ko def daal di jël mille deux cent milliards dem defar benn autorail boo xam ne trente sept kilomètres la diggante Dakar ak Diamniadio kooku su ñëwee tey taxaw fii ne leen bëgg na junj néew est-ce que war dégg problème mu Sénégal mooy dañoo jël alalu Sénégal yépp yenn nit ñi doomu seddoo ko ak yenn dëkk yi rek mu yem moo tax fenn foo tuble ci àll bi nit ñaa ngi lay jàmbat dem jàmbat dara amu fi def naa Fuuta def naa Matam def naa Podor def naa Casamance def naa Euh, euh, euh, ñombatoo def naa fu ne waaye loo fi jàmbat fii rek ma nga foofu amul benn ku ci mucc ma ñëwaat tuuti ñu wax ma waxu gerte gi camion gerte yaa ngi noonu taxaw baykat yi jàmbaar lañu nekk ci naaj bi nekk ci taw bi soxlaa lañu kenn dërëmam seen doole rek lañuy liggéey seen ñax ñax rek lañuy dundee waaye nekk ci àll bi di bay nekk ci naaj beeg taw bi bay ba pare dina la sa gay sa gerte gi nga bay mënoo ko jaay loolu musiba si c'est-à-dire Sénégal dañoo juum ci priorité yi gis nga gerte ma ko fii parce que fii ci bassin arachidier la bokk bind naa ko ci sama livre solution dañoo koy gëmloo ni gerte mooy na ci gerte du may mu baax ku leen ko waxul dëgg gerte di tax di ko jënd si kii vietnam yi di ko jënd si ba tey ñu ngi naan turquie ñu koy jënd si su gerte bonoon duñ ko jënd si gerte mooy loo xam ne amul pertement doom gi mun na nekk arachide de bouche li ñuy lekk ñun di ci def suñu maafeek suñu mburaakeek ñoom seen doom ji ba léegi mun nga ko pressé mu jox la diwlin

da ngay gis ci restaurant yi dañu naan pour pour les fritures ku bëgg a def ay fritures ñaari diwlin yooyu nga ko mën a defee kon diwlin gii di jóge ci suñu gerte gi diwlin gënu ko baax fépp lañ ko soxla ci àdduna man su ma toogee ba dégg président Macky Sall di saraxu turki naan leen dimbal leen ba ngeen ñëw jënd gerte yi damay am lu ma métti trop damay rus gerte gi ba léegi.

ñu ne nag ngooñ gi ngooñu gerte gi lu ne mën nga ko cee def dèjà bu ñu génnee ci nawet bi dugg ci saison sèche ñëpp xam nañ ni euh, jur gi ci ngooñ gi la ñu mën a dundee kon produit boo xam ne amul dara loo ciy sànni ci àll ba te loo ci produire baax na li ñu bëgg nañ ko ñu ne la produit boobu tey ñu ngi lamb fii Sénégal ba béykat yi ñu leen di fay ay cent cinquante mille ak ay cent vingt mille.

tey chemin de moo war a boucler Sénégal ba mu Casamance ba Saint-Louis Dakar ba Tambacounda te bu boobaa nag dëkk yëpp dañ ko mën a dundalaat ndax luy jógee Mali luy jógee Casamance luy jógee feneen ak dina jaar li ñuy neew lu jógee li ñuy neew dina dina dem egg foofu ñaareel bi mooy lii ñuy bay fii te bassin arachidier li ci gën a fës mooy gerte yi il faut que ñu améliorer ko parce mbay mi tam. Nous continuer de dépendre uniquement ci la wax culture saisonnière mooy ñetti weer ci at wi pour nga nous a béy lu ëpp ci il faut que régler un certain nombre de choses bu ci njëkk mooy la maîtrise des facteurs il faut que béykat bi di jot ndox ci bépp jamono ci at bi ñu projet bu am solo de ñu la revitalisation des vallées fossiles ñu am ko depuis Abdou Diouf pratiquement waaye ça suñu ñëwee war koo appliqué. suñu président yi dellu gannaaw parce que Mauritanie a na kenn du laal ci fleuve Sénégal fleuve Gambie ne fi fleuve Casamance ne fi Sine Saalum ne fi duñ ne su ngeen ñu wóoloo ba dénk ñu réew mi li nga xam ne excédent la ci ndox mi nekk ci fleuve yi ñu wër yëpp dinañu créer ay canalisation xëcc ko mu traverser tout le Sénégal gàncax gi saxaat mu baax ci jur gi waaye nit ñi mun a béy 12 mois sur 12.

nga transformé ko fi andi mu andi li tubaab di wax valeur ajoutée waye bu wéso lolou nag nga mën jël li ci soxla fi ci dëkk bi li ci dess nga mun ko exporter jaay ko lu cher am li ñuy wax devise te devise dafa baax ci économie loolu nag fii bassin arachidier fii gi ngi lew am na rôle bu reuy bu ci wara jouer li ma ci bëgg wax mooy am nañu yéeg-yéeg ci dëkk yi ñun dañoo bëgg bu ngeen ñu wóoloo ba dénk ñu réew mi kenn ku ne fa nga dëkk kenn ku fa nga dëkk la fekk ci sa wërsëg ci réew mi da la fa fekk nit ñi duñu soxla ñëpp dem daje Dakar Dakar tey mat na 4 millions d'habitants kenn noyyeetul kenn dundatul alors que fii gi ngi neew li mu am ci potentialité Dakar amu ko ñun nag am nañu njàqare parce que dëkk bu ni mel. ñu ne am ngeen fa ay ndombo tànk ba am sax li ñuy wax jëwriñ bi bu mag ci jëwriñ yi muy premier ministre loo mën a dugg gën gi neew benn yoon bu goudronné bi laa fa gis xaw ma nag lu xew ci dëkk bi courant amu fi hôpital baaxul nit ñaa ngi ci abri provisoire yi gaar ba taxaw na yéen waa gin gi néew da am seen fulla bopp parce que tamit ñun askan wi dafa mel ni léeg-léeg ñun ñooy nangu ku ñu nax ndax koo de koo ñëwoon sa kër wala soo amoon sa jur daan koy dénk ab sàmmkat ñu ne la jur bi téeméeri naga ci ne ne ko jox naa la ñaari at sàmmal ma ñaari at yi jeex mu ñëw delloo si la fukki fukki nag kooku bu dellu soité dala dénk ma sa nag yi defe naa doog ko dénk Macky Sall dafa ñëwoon fii ne leen wóolu leen ma mu amoon yeneen fukk ak benn candidat yoo xam ne ñu ngi doon laaj ngeen ne ko yow yaa ñu doy ba wóoru leen moo wóoru ko anam bi ngeen ko wóolu woon mooy dafa ne woon su ngeen ma falee dinaa def lii dinaa def lii dinaa def juróom-ñaari at tegu na ci loolu yéen waa gi ngi néew est-ce que Macky Sall li mu diglante woon ak yéen def na ko est-ce que jeunes yi am nañu liggéey jigéen ñi am nañu jumtukaay bu ñu liggéeyee est-ce que dëkk bi ndox ak courant ñëw na fi est que dëkk bi hôpitaux yi dox na est-ce que dëkk bi def nañ fi ay tali est-ce que assainissement bi ñëw na waaw ku ku def ku mënul def lenn ci di leen laaj sañ-sañ di leen laaj seen kóolute war ngeen ko wóolu askan wi nag désormais su leen buggee homme politique yi fulal leen faydal leen mooy homme politique bu ñëw ak ay diggéem ak waxam ju rëy ngeen jox ko bu del suwaatee ngeen gis ni defu ko waxuma la sax ngeen joxaat ko waaye bu duggee si dëkk bu ko kenn teeru parce que su dee suñu duggee ci dëkk bi balaa ñuy ñëw nag ku la juróom ñaari at bu waree ñëw ñu xëpp fi xaalis bu dul jeex te xaalis bi seen impôt la jóge xaalis bi seen xaalis la ñuy sàcc ñoom lañ cay denc ci ay banque Europe ñu denc ko la ci des ñu comp ci ñëw naan leen kaa leen votel ma ku la ku la dëdd nag juróom-ñaari at desul lu dul voté waat mu xëpp fi xaalis bu dul jeex dem jëli ay doomu dëkk bi yoo xam ne dañoo transmet dem ci moom bëgg su ñëwee nag ngeen tertu koom mel ni ab buur mooy ñëw bu dee askan bi bare na pour continuer ci loolu bu kenn toogati di jooytu naan dëkk bi métti na wala dëkk bi dafa makki bu boobaa dëkk bi makkiwul de ñun suñu bopp ñun ñoo makki. bukki bukki bu ko waxamaane wala mbaxawaane bu ko bukki yabee ci ci àll bi ci doxin galam yéen yéen yor souveraineté yéen yor carte yéen yéenay jox joxe nguur yéenay joxe doole la souveraineté appartient au peuple le peuple ne fait que la soo ko délégué nit nag gis ni deful li nga war li mu waroon ak yow ngir waaye dañu sanctionné amul benn mandat la def. amul demi mandat la def gis nga France ñaari président yi fa mu jéem benn mandat la ñu def muy Sarkozy muy Hollande te pourtant liggéey nañu de yàlla xam ne ñoo gën a liggéey suñu waa ji waaye peuple bi moo war a am exigence désormais parce que koo fal ne ko nag dénk naa la waaye jox naa la 4000 milliards ci budget jox naa la oto boy génn bëgguma nga taxaw fenn dinañ arrêté ñëpp yow nga dem. yow xamoo lu courant di jar xamoo lu ndox di jar xamoo lu saaku ceeb di jar say doom yëguñu luy problème ci réew mi jëndal nañ la avion pour que ngay tukki bul bokk ak kenn avion jox nañ la administration jox nañ la diplomatie mun na lekk ci suñu tur dinañu fay waaye kooku nag askan bi deselu ko dara bu demee nag topp ci ay caaxaanam ay gundaadaatam bilaam yëpp dajaate ak dàqaate amul leneen bilaam

tey moom moo leen soxla mooy ñëw raam seen kanam bu duggee ci dëkk bi da ngeen ko wan ni am ngeen fulla am ngeen fayda da ngeen ko wan ni du ngeen ku ñuy ñu ñuy nax bu boobaa beneen yoon keneen ku ñu dénk réew dina xam ni askan wi askan wu am fulla la askan bu bëgg bokkoom la. loolu doon di leen sant di jéggalu ci kilifa diine yi fi nekk di jéggalu it ci ñi fi teewoon xaar ba sonn mujj dem. da leen jottali suñu suñu suñu njëggal da ngeen leen jottali suñuy excuse di wax suñu alliés yi tamit kontaan nañu ci ànd bi bu soobee yàlla nii lañ koy defee ba keroog le 24 février incha allah jàpp nañ ni yooxu dina jóge fuñ ko fooguloon parce que campagne bi ñaari fan rek la démb ak tey malgré gàllankoor yi ñu am tey dañu demee Kaolack def suñu caravane gis nañu ñu gis. meetingu Kaolack bi gis nañ ko bi ñëwee fii gis ngi néew retard beeg guddi gi gis nañ li ñu gis waaye démb li gis Ndakaaru Njaay yéen ñëpp gis ngeen ko ci terrain te fépp dem ci Sénégal lii lay mel te du ay millions yu leen dox du ay t-shirt ñi fi sol t-shirt ñoo ko jëndal seen bopp kon gëm nañ li ñu li ñuy dugg ci politique li ñu namoon ci askan wi mooy fexe ba patriotisme ak yéeg seen bopp jiital intérêt Sénégal ci seen intérêt bopp gëm nañ ni jëmbat li ñu waroon jëmbat jëmbat nañ ko te mu ngi meññ bu baax kon incha allah ndam rek le 24 février ñu yenn waaji ba ci kaw moom ak gàngooru transhumance am waaye au delà moom ñu jël système bi ci boppam faxas ko teg système bu bees daan defar suñu réew ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaw wax nañ ñu kilifa diine yi fi nekk muy ñoom njabootu maam Baba Sarr ak maam Xaas Abdou Camara ñu waroon fa jaar maam Xaas Mbacke waaw ak suñ sëriñ moom ñu ngi koy gërëm bu baax ñoo waroon ñëw waaye moom déplacé wu la xam naa su ma paree ziar ko bu baax a baax. ñu ngi di gërëm ngeen waa Guinguinéo réew waaw ak waaw ñi fi kilifa diine yëpp parce que xam naa ne suñuy lim dina gudd waa jàngu bi sëñ Mbacke ñoom ñëpp suñu teelal ñëw ci bëccëg bi liñ ko duggee benn fu ne dañ fa taxaw lu mat 10 minutes 15 minutes daal di siyaare waaye xam ngeen yéen ñëpp ni campagne électorale dafa métti ku bëgg a def 45 département dafa laaj bés mu ne di nga def lu ëpp ñaari département dañoo ñëw Guinguinéo dañoo mujj woo waa Kaffrine waa Birkilan ne leen mënuñoo ñëw tey ñoo ngi dem Guinguinéo bu subaa nag bu ñu xëyee dem Koungheul dellu si Kaffrine dellu si Guinguinéo doog a wii dem Gossas kon loolu ku ko war def ci ay benn fan dañuy ñaan ñëpp ñu comprendre ñu jéggal ñu it suñu première campagne présidentielle la mënul ñàkk yenn gàkk yu ndaw waaye ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci patience bi asalaamaaleykum wa rahmatullah